asalaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi dellu si waat di leen nuyu ku ci nekk sa tur sant man la seen xarit seen doomu ndey Amath Diouf fas yéene ñëwaat defaat ñetteelu vidéo ci lu am solo lii nga xam ne ñu ngi koy waajal muy les élections législatives du 17 novembre 2024 incha allah mu leen di ñaan ngeen di. abonné ci chaîne YouTube bi comme ni ngeen gisee nii ci suuf enquête 221 TV te boo leen abone ngeen cliquer ci cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu defati ngeen mun koo jot teel koo jot boo leen ko dégloo mu neex leen ngeen partagé ñi leen jot ci tey mbokk yi dama fas yéene ñëw ci sama ñetteelu vidéo ah indi ay firnde ci li nga xam ni tey ñu ki bëri ci ay sénégalais jox nañ ko bopp muy le projet bon projet mooy projet bi nga xam ne ausman Sonko ak Pastef proposé nañ ko sénégalais yi depuis léegi fukki at fukki at moo tax su déggee ay nit naan. ana projet bi ana projet bi ana projet bi ana projet bi ana projet dama naan waaw ñoom ban projet la ñuy laaj xanaa waxuñu le don de soi pour la patrie bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko ak Pastef di wax depuis fukki at a ngi nii fukki at xanaa du boobu la ñuy wax bi bu fekkee boobu la ñuy wax moom d'abord gis nañu firnde bi bërki démb le 19 octobre foofa ca Dakar Arena na sénégalais yi bàbbeekoo daw wuuyu ji njiitu réew mi waxuma chef de l'opposition de njiitu réew mi mu nga xam ne bu ko neexoon tey moom mooy génn ci gafaga nguur gi jox leen ne leen dem leen campagne yi waaye dafa ne ne man maay euh, premier ministre Diomaye mooy président waaye du ñu jël ci xaalisu réew mi yéen boo leen buggee ngi dem assemblée nationale am fa majorité ñëw leen financer campagne bi sénégalais yi bàbbeeku dem financer ci campagne bi loolu muy rupture maanaam li fi amoon jóge na fi 2014 2015 man Amath may dégg ci làmmiñu Ousmane sonk muy wax ni réew mi dañ ko war a soppi système bii fi ne dañ ko fee war a indi fi bu bees te loolu pour mu am foog Sénégal yi def le sacrifice bii tax ñu changer système bi mais loolu mooy projet maanaam da ngay am vision vision boobu nga am nga ne ban yoon nga koy jaarale. xam nga dafa mel ni ku ne dama bugg dem màkk ci ab jullit soo dama bëgg dem màkk rek yem ci amuloo projet am nga bëgg-bëgg. tu encore ci wàllu rêve mais boo ne dama bëgg dem màkka te xam naa li dem màkk di laaj ci xaalis nga commencé di dajale ne fii ak juróomi at chaque weer su ma dajalee temps su ma dajalee temps su ma dajalee temps fii ak juróomi at danaa matale ma demee ci màkka boobu am nga projet ndax déjà am nga vision amit yoon bi nga koy jàllale pour réaliser sa vision mais loolu projet loolu rek la amaan na amaan na ñu ne nag léegi mais ana ana ana manuscrit bi téere bi nga xam ni moom nga wax ni sa projet si la ne waaw kay waa loolu boo boo koy laajte da nga naan ana manuscrit bi ana téere bi ndax xam nga projet mun naa ñëw. ñu di ko doxal di ko doxal di ko doxal te të te tënkuñu ko tënkuñu ko ñu ko ci li nga xam ne moom mooy téere ci misaal ci misaal bu fekkee jullit nga bu fekkee jullit nga ndax jullit boo koy jox misaal danga koy jox ci diineem bu fekkee jullit nga ñun ki suñu borom yónni ci ñun muy ngën di mbindeef yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na indil ñu diine yi lislaam indi nañu diine yi lislaam wan ñu diine yi lislaam naka lañ koy pratiquer jàngal ñu ko ba jullitu àdduna bi di ko pratiquer di ko pratiquer di ko pratiquer di ko jàng di ko pratiquer te pourtant boobu amagul téere ñu ngi doon wàcc par nànk nànk mu ngi doon wàcc par saar mu ngi doon wàcc par saar bu saa yu wàccee mu am ku ñu jox mu këru saa yu beneen wàccee mu am ku ñu jox mu téere waaye dajalewuñ ko woon tënkuñu ko woon ci benn téere yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na ay génn na àdduna ay at ñuy soog jël lépp dëxañ ko def ko ci benn téere waaw est-ce que dañuy wax ni kon. giir gi fi yonente bi nekk sallallahu alayhi te dëxuñu ñu woon lislaam ci téere kon l'islam amul woon déedéet amoon na mu doon wàcc par nànk-nànk misaal boobu laa leen bu ko jox ni projet bi tamit noonu rek la demee ba ñu man dama koy njëkk dégg ñu bëri dañu yaakaar ni soo ko laa njëkk xam ci Pastef déedéet man ba may njëkk dégg Pastef en 2013 defe naa su ma juumlee benn ngoon mii benn ngoon sama benn xarit woo ma ne ma dama seetaan 2STV dama seetaan 2STV sa benn camarade de promotion koo xam ne ñoo bokkoon classe euh, Thierno Souleymane Agne Tamba benn collège bi tudd Thierno Souleymane Agne ñoo fa bokkoon quatrième ak troisième ànd ñoo dem lycée. mu tudd Ibrahima Sori Diallo maa ngi koy nuyu au passage borom ONG La Lumière mu ne ma demal 2STV yi Ibrahima Sori Diallo ma nga nga rek sa nga dem benn at mi ngay feeñ tele nga daw ma daw émission Pape Alé Niang la ko invité woon invité Ibrahima Sori Diallo boobu may wax invité benn femme. benn cadre Pastef bu tudd euh, Bassirou may Faye ñu ngi doon wax ci wàllu code minier doon wax ci wàllu sabo euh, Sabodola ma toog di seetaan émission bi Ibrahima Sori Diallo moom indi woon de mais kii di wax attiré sama attention lool lool lool tellement que dafa maîtriser woon sujet tellement que il maîtrisait son sujet ci wàllu code mi li mu fi doon wax du nekk lu bees ci man ma gis un cadre sénégalais bu toog di wax ci wàllu mine wax bu bu set di ko teg nag ci ay di ko teg ko ci xam-xam affaire bi yéem ma lool lool lool ba ne ah kii de waaye kii mooy kan ñu bindaat ci suuf Bassirou Diomaye Faye Pastef mu ne ah ñi de am nañu solo may wër Pastef nag ju ko wër di ko wër temps boobu 2013 internet bi demeewul woon nii kenn xamu leen woon donc boo dugalee Google it boo dugalee Pastef daf lay indil émission boobu amoon télé Sénégal may ko ne di wër ko ne di wër ko ne di wër ba benn samedi may seetaan samedi mag ñu invité Ousmane Sonko muy wax ci wàllu maanaam traque des biens mal acquis bi ak ni ñu toppee woon Tahirou Tahirou Ndiaye euh, Tahirou xaw ma manaam ki ci nekkoon na euh, ki ñu tëjoon rek ma dégluwaat ko dégluwaat ko dégluwaat ko muy Pastef ma ne ah ñi ñooy Pastef ma commencé leen topp nag commencé leen topp laaj Pape Alé numéro Ousmane Sonko mu jox ma ma commencé jokkoo moom di waxtaan ak moom ñaaree ñaar may invité ko mu ñëw club de la diaspora waxtaan ak nit ñi. waaye lañ doon wax boobu ba tey moom lañ jëfee tey maanaam comme ni alxuraan doon wàccee saar par saar ñoom ñu ngi doon wax seen mbëbët pour Sénégal lan lañu bëgg ci Sénégal ak fas la fa lañ ko bëgg yóbbu ak naka lañuy ñuy def ba yóbbu ko fa kon kay projet bi lan na nañ fukki at ngi nii ñu ngi wax di ñu wax li nga xam ne moom mooy euh, reddition des comptes keroog ba Ousmane Sonko demee assemblée nationale ne député yi du ñu fay euh, du ñu fay lempo dañ war a fay lempo ñu naan gune bi mu am boobu avant avant avant muy dem assemblée nationale. fekk ñëwoon na benn émission bu ma ko invité man wax ci benn mbir mu doy waar mu wax ci mbir mu doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar doy waar ma ñëw léegi. kon ma dellu si waat ginnaaw moom Sonko ba mu demee assemblée nationale ne député yi du ñu fay lempo ñu bari naan waaw guléet mais fekk na boobu man invité naa fi Ousmane Sonko mu wax ba histoire benn histoire bu doy waar moo tax fu ne dana raxas maanaam finance Sénégal ba mu set becc nañ ko gëm ndax keroog lii ma lay wax ni dafa 2015 la woon. deux mille ñu ngi ci lan deux mille vingt quatre neuf ans après leen bu baax. déposer une plainte contre un collègue parce que xamoon benn paa du ma tudd turam fii boo xam ne baayam français la woon yaayam di sénégalaise mu bàyyi ci baayam bi muy dee daf ko bàyyi ci suuf mais moom mu nekkoon France defoon armée française après toog France bi mu dellu see yorul dara sonn sonn sonn ba. gars yi ne ko sa bàyyi bàyyiwoon na fi ay ay terrain yu demee mu ñëw di terrain yi ndekete am na kenn koo ki ñuy wax xam nga curatelle terrain bu toog lu yàgg gisuñu kenn ku ko dañ koy def sous curatelle ndekete ki yoroon curatelle bi ci jamono jooju moom dem na jaay suuf yooyu paa bi moom ba ci notaire maître Mbacke mu defal ma procuration ma bind plainte dem déposer plainte bi man moom déposer plainte contre sama benn collègue ñu nekk ci suñu directeur général woo ma ne ma yow lii doo ko mënee def ton propre collègue ma ne ko na restituer noonu lañ ci nekkee nekk ba benn terrain bi nekkoon booru Padois rond-point Padois bi paa bi jot mi ngi ko jaayee trois cent quatre-vingts millions yëkkati xaalis ñëw ne daf ma koy may ma ne ko wallaahi def ma ko ngir fukki dërëm dama laa gis nga ñëw fii sonn boobu mi ngi jógee ci accident amul sax mu jëndee ordonnance. waaw mbokk yi kii lii mu def. te impôt et domaine maanaam collègue de service am moom Ousmane Sonko porté ko plainte pour xaalis boo xam ne keneen du xaalis boppam de déedéet keneen moo riiree fële am soxla impôt et domaine ñëw ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne ko nañ dem ci notaire nga defal ma këyit nga defal ma këyit mu porté plainte collègue am directeur directeur boo ko ne ko mais naka mun a porter plainte sa collègue mi ne ko dafa jël alalu jàmbur nag ko delloo ku porter plainte sa collègue koo xam ne yéen yéenay liggéeyandoo yéenay xëyandoo xam nga sa liggéeyukaay sa liggéeyukaay ñaare ñoom ngay gën a gis que sa waa kër ndax boo xëyee huit ba cinq heures yeneen nekk lundi ba vendredi ñoom ngay dem ba gën a miin. moo tax la preuve xoolal digganteem moom ak euh, Bassirou Diomaye fay ni mu demee ba moom moo fa jiitu Bassirou Diomaye fay waaye ni ñuy dem ba di liggéey ensemble ba xaritoo dugg fa ba euh, tuddante doog am ci kon ñaaree ñun Sénégal ñi nga xam ne ñoo ñuy liggéey noonu dañu di jox cër moom nag mu porter plainte son collègue parce que c'est un collègue dafa détourné xaalisu jàmbur <coughs> la ci gën a neex gannaaw ba waa ji fayee trois cent yi quelques millions yi jox ko góor googu yéen ko dégg ci kàddoom ba ne na góor gi yëkkati di ko jox mi ne ko def ko woon ngir ñaar dërëm da koo defoon yàlla rek moo tax kon kooku waxoon nañu boppam bu yàgg moo tax su ñu waxee ni alalu réew mi ñu ngi koy def noo xam ne naka su noonu te dafa jóg pour ñëw pour ñu maanaam bàyyi yàq alal réew mi te képp ko fi sàccoon ñu topp la waaye kooku bu ñu ko waxee war nañ koo gëm ndax bu muy porter plainte collègue am ci alal boo xam ne moom amul ci dara dara dara dara dara dara dara kooku ba borom xaalis ba mu jënd xaalisam ñëw may ko mi ne ko soxla ma ci dërëm kon projet bi bi yàgg naa wàcc de projet bi yàgg naa wàcc de ah, ah waaw loolu wàccu woon bu yàgg. maanaam lii ñu commencé def nii tey ku luubal na ñëw fay am na ñu joxe vingt huit millions am na ñu joxe gaa yi commencé fay nànk-nànk de ku fayul ñu walla di waajal nag dem assemblée nationale su fa amee majorité nag aha mun a topp nag ña ñu ñu naan borom mbaxane yi ku nekkoon ministre ak ku nekkoon président ci luubalu àll réew mi kon il avait annoncé la couleur depuis très longtemps déjà moom mu ko doon dund ba mu duggee ci politique mu ñëw ne nii la nii la ñu bëgg dafay politique maanaam sellal alalu réew mi ñu protéger ko ku ci amul wàll ku ci amul yoon war a cee jot ku ci war a jot ñu jox la ko ak noo ko war a jote ñu ne ñu ana projet bi projet bi kay ñu maa ngi koy wax depuis 2014 ak 2015 ñoom waa Pastef di ko pratiquer nag ñoom seen bopp. comme ni ma leen joxee euh, euh, euh, misaal ci ci ci sunu diine gi rek wàcc na ay at ñu ñu ñu du ko pratiquer ñu ngi julli ñu ngi woor ñu ngi joxe asaka ñu ngi ñu ñu ñu ngi bàyyi tere hmm? di di di def lépp loo xam ne digle na ko te pourtant livre bi amagul waaye xam-xam baa ngi fi wante lépp loo xam ne wàccoon na rek tëxëñ nañ ko fenn am na ko ko am na ko ko mémoriser am na ku ko bind quelque part. ba ay at ci ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam si lañ koy soogoon nag def ci téere léegi nag buñ doon laaj naan ana la manuscrit di projet mu ne leen mi ngi soog génn waaye le projet en tant que tel moom 2014 2015 ba tey Ousmane Sonko mi ngi koy wax jot may fay mi ngi koy wax Amadou Ba mi ngi koy wax waa Pastef ñu ngi ko doon wax maanaam mooy lan le don de soi pour la patrie loolu mooy yokk projet bi. gis nga projet bi bu leen fii kenn buure ku nekk na nga xam sa place man de amaat xam naa sama place doo fi nekk naan présentation bi ñu def dama koy jéem a lire pour parcourir ko xam lu ñuy wax ci économie xam lu ñuy wax ci industrie xam lu ñuy wax ci pêche xam lu ñuy wax ci leneen ak leneen ak leneen xajul sama bopp bii ba boobu jàng xajul sama bopp bi damay nekk un sénégalais ordinaire xam nga sénégalais ordinaire lu ko war mu yokku projet bi. la moelle euh, la moelle épinière du projet mooy lan le don de soi pour la patrie gis nga boobu kàddu noonu mu gàttee noonu la amee solo noonu la dënkañee projet bi yëpp maanaam sénégalais bu ne na nga pare bu jaree nga joxe sa bakkan nga joxe sa bakkan bu jëree nga joxe sa alal nga joxe sa alal bu jëree nga joxe sa ñax nga joxe sa ñax bu joxee nga joxe sa loo mënti joxe pour que suñu réew mii changer doxalin pour que Sénégal bu ne gis ci boppam loolu mooy le don de soi pour euh, pour la patrie te loolu misaal bi dafa yomb misaal bi dafa yomb dafa am dafa am benn benn benn euh, nu mu tuddati sax waay waay waay waay waay waay waay waay waay kii mu tuddati waay euh, damay tur bi. wante benn euh, sëñ Saliou lan euh, am mbir mi ànd ma waay mi ngi nekk dafa mel ni rek nga jël nga nekk tijaan wala nga nekk murit walla nga nekk xaadar wala nga nekk laayeen wala nga nekk euh, chrétien am sa diine gis nga noonu ngay seeyee ci sa diine mu jaral la lépp lu mu la tere nga bàyyi lu mu la digal nga def ba di dundal sa diine di ko dund loolu la laaj ñu def ko pour réew te mën nañ ko te mën nañ ko walaay asi mën nañ ko mën nañ ko noonu nga xam ne na lay dundee sunu sunu diine boo gisee murit bi sëñ Tuubaa jaral ko lu ne maanaam mu jaral ko bakkanam c'est-à-dire yoon bi la bëgg sàmm yoonu murit la bëgg sàmm nga jël tijaan bi la même chose tarixa bi jaral ko lu ne yoon bi la bëgg sàmm mu jaral ko lu ne noo nit ki laayen bi euh, ki bi maanaam bi ak religion chrétienne bi ak religion le don de soi pour la patrie noonu la mel pour tout citoyen sénégalais te le don de soi pour la patrie mooy yuqu projet bi mooy yuqu bi loolu boo ko comprendre rek jëfee ko rek daal di wax ji daal di na jeex projet baa ngi noonu ku la laaj na projet bi nga ne mooy le don de soi pour la patrie yoon la yoonu tekki yoonu tekki la yoonu Sénégal bu prosper yoonu sénégalais bu développé mais yoonu sénégalais bu am équité sociale loolu mooy le don de soi pour la patrie loolu rek la don de soi pour la patrie mooy la moelle épinière du projet mooy yokku projet bi leneen lu ñu la wax dañu lay brouiller dañ koo bàyyi ñi nga xam ne ñoom ay borom xam-xam lañu bu ñu toogee ñoom seen biir dañ mën a waxtaanee chiffre dañu mën a waxtaan ak prévision dañu mën a waxtaan ak leneen waaye ñun sénégalais lambda te Sénégal ñor ñu loolu te ñu gëm ni Sénégal bii pour ñu projet pour mu prospérer yoon bi Ousmane Sonko Pastef jël moo ñu fa mën a yóbbu kon nañ ko jàppale ci loolu moo tax euh, mbokk yi xarit yeeg am di jàmm yi le 27 le 17 du moins le le 17 novembre waaw mi ngoog sama waajaa ngi nii am na ci internet bi ko tudd bëgg saaliwu xel xom bëgg saaliwu xel xom jëreen dem ci page am ko mënee si ngay gis taalibe pire taalibe dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo xam ne dafa dafa dafa dafa jeex dee ci yoonu murit moo tax bu bu bu bu bu bu bu màggal di jot nii ba mu takk ceinture am ba teg ay cinam ba di togg da ngay bëgg jege ko ànd ak moom nekk ak moom kon mi ngi bay wàllam ci wóoru yoonu murit dee ci seey ci loolu ku ne bu ko defee ci tarixaam def ko ci diineem wante def ko ci seen réew it mais réew mi day dem lii tey waa Pastef def di fundraising mu di leen jëg mais tarixa boo dem ñoo ngi koy def mu di leen jëg ci ay at a ngi nii ay at a ngi nii ñoom ñoo mës a seen bopp tarixa yi bu leen nguur gi jàppale ñu dem bu leen nguur gi jàppale wu dem parce que taalibe yi da dañuy participer seen lépp ci tarixa bi la diine gi la même chose ma di ko bëggee bu baax bëgg Saliou xel xom kooku exemple la ku xool ci kooku ni mu mel ci yoonu mu yow nga mel ko sa diine ba pare nag après mel ko ci yoonu réew mi ne réew mi day avancé Pastef ci loolu la ñuy woo gis nga doxalinam doxalinam boobu mu mel loolu mooy le don de soi pour la patrie moom daf ko def le don de soi pour mouridisme pour Serigne Touba. keneen def ko pour Alaaji Maalik keneen def ko pour Maam Limaamu Laay keneen def ko pour keneen na keneen na keneen jullit bi def ko pour yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi def ko pour Yeesu Krista loolu mooy le don de soi maanaam joxe sa bopp pour une cause et c'est ça le projet buñ la laajee demal buñ la woowee demal liggéeyalal pour sa réew ku la woo ci violence bañal ku la woo ci xeex bañal ndax nag démocratie dafa am yoon kon loolu mooy projet bi nga xam ne ah man de am de 2014 2015 ba tey maa ngi doon gis nii ñu di ko théoriser Ousmane soo di ko théoriser Bassirou Diomaye Faye di ko théoriser ma dem dem ba ci ñeneen ñi nga xam ne après ñoom dégg naa ñu di ko wax. moo toogee tegi naan ma ana projet bi naan danaa naan uyu la manuscrit du projet waaye le projet qui existe bel et bien et depuis depuis dix ans. léegi nag le don de soi boobu pour mun a àgg fii laay daanele pour mun a àgg mbokk yi xarit yi am di jàmm yi. le don pour ma àgg lenn rek la mobiliser wu focus na kenn bañ na euh, maanaam këf ñu ñuy wax ci leneen wala ñuy def ci leneen lu ñu waxul assemblée nationale le 17 ñu fexe ba président Ousmane Sonko ak la Pastef am une majorité écrasante à l'assemblée nationale parce que nag une majorité. écrasante moo koy permettre mu teg yenn politique yi sans pour autant def ay compromis que compromission bu amee majorité bu doy mun a teg nag lu ñëpp di xaar maanaam yi ñu war a àtte ca li fi jotoon a xew yépp ñi rey nit ñi ñi luubal alal réew mi ak leneen ak leneen ak leneen ak leneen ñooñu ñu àtt leen ba sénégalais yépp xam ni lii moo fi xewoon ka fi defoon lii àtt nañ ko ci lii daan nañ ko ci lii ba déwén ba at yi di ñëw kenn du ko defaat ci réew mi kon am na solo trop trop trop trop trop ku ci nekk ci ñun fagaru dégg naa kart yi nag bari nañu ci préfecture yeeg fi ñu koy jëlee jëli ji leen seeni carte jëli ji leen seeni carte jëli ji leen seeni carte bu leen ko tayal ndax nag dañoo raté alternance d'abord dañoo raté le virage de l'indépendance dañu ko raté te xam nga ñu raté ko xam ngeen loo ci raté le village de l'indépendance coowul lan luubal coowul luubal moo tax ñu raté le virage de l'indépendance gis nga lii Ousmane Sonko di réglé nii nii nii nii nii nii nii nii nii en deux mille vingt quatre bu ko réglé loolu moo tax en mille neuf cent soixante deux mu amoon crise bu doy waar ci réew mi xaalis bu ñu luubaloon ñii ne dañuy fay ñii ne duñu fay ba mu am crise boo xam ne Sénégal mënoon na fa jaare yàqu danaa dellu si ci loolu comment nous avons raté les virages de l'indépendance comment nous avons raté les virages des deux alternances on n'a plus droit à l'erreur le dix 17 novembre 2024 incha allah je voterai Pastef le 17 novembre 2024 incha allah je ferai tout mon possible pour képp ku ma xam nga voter Pastef yéen def leen noonu bu leen fàtte tamit di abonné sur la chaine enquête cent 221 bu leen abonné ngeen bës cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal rek ngeen jot ci à la minute. bu leen ko dégloo mu doy leen après ngeen partagé ko gërëm leen sant leen ñaana leen yàlla di ko sàkku ci yéen di ñaanal yàlla bu yaakaar tas yaakaar bi ñu am ci projet bi yaakaar bi ñu am ci président Ousmane Sonko yaakaar bi ñu am ci président Bassirou Diomaye jaxaar Faye yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaakaar tas yàlla bu yaakaar